APR Touba Darou Manane euh, di sant ñëpp bëgg a ñëw am lu ma leeral tuuti di sant suñu Mountakha Bassirou euh, gis nañ bi corona bi duggee Sénégal Covid 19 bi euh, moo njëkk a yëkkati deux cent millions jox ko askanu Sénégal parewu fa après dafa jëndaat ceeb bu bëri jox ko is bi ñu koy distribuer mu nekk loo xam ne dañ ko war a rafetlu di ko ñaanal gudd fan ak wér ñun sëñ bi loolu rek lañ koy ñaanal gudd fan ak wér. bëggoon na ñëw tuuti nag bëgg wax ci situation réew mi surtout corona bi nga xam ne kaa euh, cas communautaire yi sonal na Touba euh, mu nekk loo xam ni autorités yi war nañ jël seen seen seen seen seen seen seen décision ferme xool yan institution la ñuy teg pour loolu noonu mën a wàññeeku ci dëkk bi. marché yi nag ñun d'accord nañ ñu tëj ko parce que ñun yaakaar naa ne santé euh, mooy lépp waaye nag lépp lu ñuy def rek war nañ see am consensus ak ñi nga xam ne ñooy autorité dëkk bi. ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi parce que boo gisee situation marché bi lu mat sept jours ñu ne dañ koy tëj te tëj boo xam ni yow ñoo ñi nga xam ne tëj ngeen seen marché joxuñu leen joxuñu leen dund boo xam ni dina tax ñu toog seen kër durant sept jours yooyu parce que man état laa far parce que euh, représentant max Sall yi fi nekk porte de voix mais ñëpp gis nañ ne dund bi aide alimentaire bi bañ waxee ne dugg na Sénégal ba léegi partout da département yi bëri jotaguñ seen quota ñun suñu département bi euh, quota de état bi dugg ko fi léegi nag bu ñu bëggee ne dañuy tëj marché yi nit ñi toog seen kër te amuñu lu ñu leen jox boobaa day metti ne ñun ñëpp xam nañ ne kaaraange euh, sante mooy lépp boo amul santé doo tala lekk doo tala dox doo tala def dara waaye décision yi nag bëgg nañ ñu bu ñu koy appliquer ñu xool ko xoolaat ko mm-hmm. parce que foofu suñuy frère ñoo fa nekk suñuy yaay parce que marché boobu am na suñu yaay joo xam ni mm-hmm. bu duggee bu demee marché li muy jaay ba onze heures loolu si lay jënd am dugg yóbbul njabootam mm-hmm. foofu la ñuy wax rek maanaam situation yi ni mu méttee maanaam. Mhm, crise bi mhm. euh, am ñeewante rek. Mhm. waaye ñun ñëpp ku ñu xam-xam ne ñun. gën euh, euh, gënuñoo xam liy yoon. mais lépp lu ñuy def rek ñoom autorité yi war nañ ko xool xoolaat ko bu baax soo ko def. voilà mu mel ni am na ay bërëb yoo xam ne fii ci Touba nit ñi dañ fay dajaloo mu mën a jur ay géeyee. waaw dama jël exemple rek tout près commune commune Touba. wax naa ko démb nee naa personne bi taxul mooy wax muy jëmmi laat ka mais maa njëkk a def vidéo si biir commune bi si ceeb bi juste ceeb ba ne. ne leen nit ñi ñëw fii si porte bi di def regroupement mën na créer sax ay cas fii. nañ xool nu ñu joxee nit ñi ceeb bi parce que yaakaar naa ceeb joxe ko du dara 400 tonnes. tur euh, bi moo rëy rek mel dara 400 tonnes Barthélémy Dias joxe na ab dund. commune Mermoz ak feneen ak feneen point E amul coow. mais chaque jour yaa ngi gis rassemblement bi nii nii rek maa ngi fa jaar maa ngi jël oto ñëw sama taxi bi. mais maa naa ko xoolal rassemblement bi fii. bu ñu jàppee nag dañ ko war a jox askan bi li ma lay wax fekkee yàlla moo tax. Mm-hmm. ñu war koo joxe mm-hmm. ñi ñëw si porte bi foofu taxaw si porte bi dañ koo soxla mm-hmm. te dañoo bokk si askan nañ leen ko jox fu mu jëm ñoo xam la yem man nag euh, damay mu nee naa mu si sànq man am naa samay lijjanti bopp mais maa fa dem fekk fa ay situation yoo moom ma wax ko am na ay javelise nag maire jot na si am nañ ay discussion mais man askan bi moo ma tax di wax di di aartu nag ñi nga xam ne dañu def ay menaces man toog naa si ban jàng naa xam naa ay voix yoo xam ne bu ñu dafa am ñuy def ay menaces waaw am na ay ay ay